waaw tontu. a ah, de waaw. is it? waaw SRA bi usine. Jooja. waaye da ngaa xaw a de xaw ma wut. wut. xamul fii tey da ngaa xaw. da ngaa xaw ne nga may jotee yi. SRA dama am benn site. Jaxabal TV. waaw konti. SRA. waaw. is it? Jooja. waaye da ngaa a de xoolal wi oui xoolal fii tey da ngaa xaw a. da ngaa xaw a nga maa jëlee. te saa dama am benn site. booy Ndiambal TV.